jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur people 221 ñi si mun ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen tey nag ñu ñëw seet si kilifa goo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di Dieng Niass ah, fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu ñaan waaye fas yéene waxtaan ak moom ci actualité ak jafe-jafe réew mi sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre. waaw di nuyu mbooleem Sénégalais di leen nuyu si baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bi nga xam ne mooy nuyoo mbooleem jullit. gannaaw bu nu santee yàlla julli si sangu-sang yi Seydina Muhammad sant sunuy waajur ñu ngi nuyu mbooleem sénégalais yi rawatina kilifa diina yi diggante góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu si baat asalaamaaleykum fas yéene waxtaan ak yéen. Euh, suñ bi ñu gis ni fan yi am na tiis boo xam ne dal na ci réew mi. Mhm. bi mu amee nag ku nekk a ngi jóg di wax. Mhm. Euh, tey ma bëgg nga leeral ma ci tiis bi fi am rawatina bi mujjee am barki démb mu di accident bi. waa accident yi waxoon naa ci si jamono yee di passé euh, décembre bi. yaakaar naa ne li ma ci waxoon ñu bëri dégg nañ ko c'est parce que réew mi dafa soxla ñaan bu dul dara mag ñi fi nekkoon jugee fi wax nañ ko ku si mel ni Cheikh Tidiane si wax na ko nee na nañ sang réew mi kon loolu dafa jotoon bi ko bi mu ko waxee rek dafa jotoon ñu laaj ko nan la ñuy def waaye suñ gouvernement yi daanaka ñoo ñuy li nga xamante ni ñoo moo ñuy dal daanaka ñoo ñu koy teg. presque que sëriñ si dañ leen desal gannaaw ba mu ëpp. te fekk jiitaluñ sëriñ si yu mel nii du ñàkk di jugee fii du ñàkk di fi xew ndaxte lan mooy lan sëriñ si ku si mel ni maam Abdou bu dara waraan a ñëw da koy wax ñëpp génne sarax loolu ba léegi jugi fi am na ñoo xamante nii tey jii nii maam Abdou dëgg la kilifa la waliyu yàlla la yàlla may na ko mais bi mu fi demee am na ñu fi bàyyi dëgg la dëkk bi ba léegi yàlla mayam yi du du fi jug ba léegi mu ngi fi moo tax ñenn ñi dañ leen war di déglu yàlla nag li muy maye dina nekk ci mag dina nekk ci ndaw waaye suñ gouvernement bi daanaka bàyyeetuñ xel léegi sëriñ si sëriñ si waxee ñu ne nangam ak nangam moo tax li xew yëpp di xew te li ci gën a yéeme mooy léegi sacrifice yi ñuy def doy na waar ba nga xamante ni fi mu ne nii comme li ma waxoon rek accident yu si bëri nga man lu ci mel noonu dal na ma ànd naa ak sama maam kii nii nga gis si ginnaaw photo bii après di nga ko jël bu baax kii mooy alaaj Babacar Niass kii ñëpp xam nañ ko Sénégal buñ ne jinne kii moo tax ñu ne jinne kii xaritu Serigne Saliou la woon am na lu ñu seqoon tey jii nii am na yoo xamante ni macha allah yu bëri ñu ngi ko garder ci moom. mos nañu ànd kii nag Sidi Lamine Niass mi ngay dégg ak Ahmed xalifa Niass mi ngay dégg ñu moom ak kii ñoo bokk benn baay maam Khalifa Niass mooy seen baay man mooy suma maam. man kon buñ ne baatin wala jinneeg yooyu dama ko xam parce que lu nekk man su góor gi sama xarit la woon sama sama maam la woon mais dafa am loo xamante ni daf mos na dalal jinne ci biir néegam jinne ji dafa am lu mu doon jël si. bi jinne ji ñëwee nag dafa wax soo maam mu jigéen ay Aïssatou Touré na ko kii nii nag nit la daf ko euh, présenté jëmmu nit ne ko Touré la sant sa mbokk la te fekk boobu du nit jinne la dafa am lu mu doon jël si si moom benn benn turu yàlla bu mu doon jël si mag ñi yàlla moo leen may. accident bi loo ci waxoon. kon accident bi dama ne woon jinne yi fi mu ne tasaaroo nañ ndax lan lu tax ñu tasaaroo sacrifié yi ñoo bëri ci dëkk bi. ñan nga jàpp ne ñooy def sacrifice. sacrifié bë bëri na maanaam am na ñoo xamante nii tey jii nii man nga ne ñii la mais bëri na sëriñ si ñoo xamante ni ñoom ñoo ñoo waral mbir mi ndax lu tax ñu waral ko ndax nit ki dangay suuraale sa bàmmeel tey jii nii da nga war liggéey loo xamante ni ëllëg si biir boo duggee sa bàmmeel dina la jëriñ ndax léegi fi mu ne nii li li ñuy def daal doy na waar doy waar goo xamante ni feek juguñ si ñun ñi nga xam ne ñaankatu yàlla lañu piir def ci ay sarax ñu bool ñu àndandoo ñun ñëpp ak gouvernement bee képp koo xam ne bëgg na baax rek ñu àndoo ci def ci ay ñaan yàlla bu ko defee lii denc ndaxte lii nekkul loo xamante ni lu war a lu war a jeex la. il faut ñu def ci ay ñaan. kon sa xalaat da jàpp ne casserole yi moo bokk na ci sacrifice yi. non casserole yi sax euh, maanaam day yëngal waaye daanaka ay yeneen mbir yoo xam ne yu gën a garaaw yooyu nit ñaa ngi koy def parce que casserole du rey nit. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi soxla cëru nit. ba ci armeel yi dañuy dem di di di jël cëri nit yi di ci def loo xamante ni naka sudul noonu la yooyu moo gën a garaaw mbiru kastuloor yi sax daanaka li muy yëngal bëriwut mais jëmm nit ñi ñu soo ñii di sàcc xale ñii di def lu ne moo tax accident yi mënul ñàkk il foo dana am ndax jinne yi fi mu tasaaroo nañ euh, pour yàqal nit ñi te ku jugut si sa bopp nag uti ñaan mhm. mënoo see mucc jërëjëf ci wàllu ñaan boobu laa bëgg ñu ñëw mhm. fi may njëkkee jamono ji tas na Mm-hmm. ñu bare ngi soxla kaaraange. Mm-hmm. Euh, euh, ci wàllu kaaraange laa bëgguñu waxtaan ci. kaaraange pire alhamdulilah loolu dana am ndax nit ki warul lu jug rek ñëw dal sa kaw parce que défense dafa am solo ci nit loo xam ne moo lay moo lay mooy tax nga am kaaraange piir loolu dafa am mag ñi dañ ko daan liggéey bu njëkk mais léegi nit ñi dañoo sàggan seen jëmm parce que yow ndaw nga jug di wuti da ngay gis ndaw loo xam ne day dem ba dëgmal buntu àdduna nga gis mu damm ñu ne dee na wala accidenté na fii wala euh, ay affaire am yàqu na fii yooyu yëpp lu koy waral mooy ñàkk jug ci sa bopp ndaxte ñaan fi lañ ko fekk fi lañ ko bàyyi ku ne la gëmul ñaan waxu dëgg da laa bëgg a yàqal donc waaye ñaan li nga xamante ni fii lañ ko fekk fii lañ ko bàyyi kaaraange nag dafa am kaaraange dafa am ndax tey jii nii nit bu jugee pour def la dara am na loo xam ne tey bu fekkoon njëkk na sa jëmm mooy lii nii ma wala tey am na benn sangat goo xam ne mu ngi nii lii pour kaaraange dong moo ko tax a jug kii tey jii nii boo demee ba koy sangoo juróom-ñaari puso nga ciy boole ku dee moom xam nga ne bu ñu lay ñaw dañ lay euh, bu ñu lay euh, ñawal malaanu càngaay lu lu koy ñaw mm-hmm. du pusa mm-hmm. tey jii nii lii boo ko sangoo boole ko juróom-ñaari puso sangoo ko juróom-ñaari fan wallaay wal xuraan azim képp ku la liggéey day da danañ danañ ko danañ ko yóbbu armeel ya loolu amul sikki sàkk kaaraange pire moo nekk nii mhm. loolu dafa am bu dul lii sax am na sunguf yoo xam ne mën nga ko sangoo mu jëriñ la am na loo xam mais ñun si wàllu alquran la ñuy dox ndax suñ maam yi si loolu lañ fekk si la ñuy ubbee nit ñi si lañ leen ni ñaanalee ñu mucc bu dee da nga soxla loo mën di soxla rek tey jii nii am na turu yàlla boo xam ne ñun dañ koy ñaanee yàlla bépp turu yàlla bu nit yore si Sénégal bu dul boobu tur yàlla bi ñu yor ñun ëppee na la ñeenti junne yoon doole d'accord ci wàllu këyit yooyu laay ñëw jamono ji nga gis ñu bari dañu am jafe-jafe këyit mu di kii déposé ci entreprise bi wala ki nga xam ne dafa nekk ci diaspora bi bëgg a ñëw mu taw a ñëw ci wàllu papier. papier bi alhamdulilah rabbil alamin duñ ci tagg suñu bopp sax mais ñi si jëflante ñoom xam nañ ñu bu baax xam nañ ñun ñooy kan ci wàllu woowu ndax nit ki li ma lay wax rek mënoo koo ñaanal te seetaloo ko ba pare wala nga liste xaaral ko. Mhm. kopp bii tey liste xaar moo ko tax a jug. lii ndox la bant moo nekk ci biir tey jii nii su dee suñ mbir ak yow déggoo na te sangat la aussi goo xamante ni wàllu wërsëg la bu dee suñ mbir déggoo na ak yow tey bant bi boo si ñaanee sa soxla yow day taxaw si biir ndox mi nga koy gis nga xam ne say mbir moom ñu ak yow déggoo na mm-hmm. mais soo ko sampee si biir ndox mi mu daanu demal si ku la neex mu ñaanal la ñun mënuñ laa ñaanal si lañ lay xoolalee ba xam say kayit dinañ dinañ ci am ndam wala duñ ci am ndam ndax nit ki mënoo koo ñaanal te xamoo li nekk si jëmmam bu ñu la listixaaralee wala ñu seetal la ba suñuy mbir ànd ñu xam say mbir li ngi njëkk mooy dañuy xool sa wàllu yaram bu nekkee sa yaram tey jii nii dafa am liggéey wala mu am cat cat dafa moo tooy tey nit ñu bari ñu bëri ñu ngi foog ne liggéey moo leen jàpp te fekk cat moo leen jàpp bu fekkee sa jëmm dafa am cat wala mu am liggéey dañuy fexe raxas ko ba mu set am na sangat yoo xam ne moom lañ lay jox nga sangu ba mu set boo defee sa jëmmu set ñu daal di jël li nga xamante nii mooy kaaraangi teg ko sa jëmmu ba nga xam ne keneen du la mën a def dara bu ko defee ñu jël sangat yoo xam ne ay ubbi wërsëg la day ubbi wërsëg ñu jox la ko bu paree ñun ñaanal la ñaanu këyit dafa am ñaanu këyit dafa am ñun suñu wàll daanaka këyit yi daanaka dara mais kurus ñun lii lañ xam. kurus lu bari si lañ koy def. gannaaw bu nit ñi tëddee si la ñuy jug di ñaan yàlla am na heure boo xam ne loo si ñaan yàlla yàlla nangu la te ñun yàlla xamal nañu ko ndax mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñu jox mbir yu ñu yor kon ñun lii nekkuñ si loo xamante nii daanaka su ma yeboone suñ deret lay daw ndax mm-hmm. deret Alaaji Abdoulaye Niass maam Khalifa Niass moo nekk suñ jëmm mm-hmm. moo tax luñ ñaan moo tax euh, xool bu sell am solo ci nit luñ ñaan yàlla yàlla nangu ko kon loolu mooy wàllu kayit dañ lay dañ lay raxas sa jëmmu defal loo xam ne kaaraange la bu ko defee ñu defal loo xam ne day ubbi sa wërsëg ba loo yóotu jot ko defal la ñaan xam ne ñun suñ digganteeg yàlla la ñuy xool suñuy ñaan dañuy jug guddi defal la li nga xam ne moom nga soxla ba nga am ci yaakaar naa am nañ si résultat yu ne ñu nekk Amérique ak ñu nekk Espagne ak ñu ñu nekk fii bëgg a déposé wallaahi maa ngi nii bu yàggut ñu bëri dañ ma ñoo xam ne ñoo déposé ay visa Amérique ak yëpp incha allah rabbi ñoom ñëpp yàlla may na leen macha allah alhamdulilah sant yàlla bu baax. Mhm. ma ñëw ci garab yi ma fekk ci suuf. Mhm. ma bëgg nga indil ma ci ay leeral garab bu ci nekk effet bi muy def ci doomu aadama. garab waaw garab yi waaw mu ngi nii garab yi xam nga feebar. feebar fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mbooleem feebar bu yàlla bind rek ñun yàlla def na suñu maam Alaaji Abdoulaye Niass bind na té bindal nañu téere boo xamante nii tey jii nii mbooleem feebar bu nit amee ci àdduna def na ko téere boo xamante ni mbooram feebar bu nit am ci àdduna feebar bu mu mënta doon laa wax boo amul solution amul ñun suñ maam ajaab laa ñu sant yàlla ñun duñ jéggaani fenn xam-xam góor gi jëlee nañ ko ci moom mboolem jàngoro boo xam ne nit mboolem jàngoro laa la wax de waxuma la ay bët ay yii ak yële mboolem jàngoro boo xam ne doomu aadama yaa ko amee di ko sooxaaleeg moom suñ maam ay jaablay ñees bindal ñu loo xamante ni moom moo ko war a faj. lii nii tey jii nii ay garab la yoo xam ne tey jii nii mosoo dégg yow sëriñ bu ne la man damay fay faj xuuxaan xuuxaan xam nga ko feebar la soo ñëwee ci man fay laay xam du am na ñoo xam ne defal nañ leen ko. xuuxaan faj nañ ko ci faj fajal nañ leen ko ba nga xam ne tane nañ alhamdulilahi rabil alamina lu ci mel ni tànk yu newi wala góom boo xam ne dafa tëw wér wala wala wala bopp boo xam ne noo yii wàllu estomac la damay jàllaale foofu rek euh, parax ndawlo jàllaale foofu ndax daanaka temps bi duñu ko may bu ko defee nga xam ne bu dee bopp buy metti la wala muy biir buy metti wala muy jàngoro yoo xam ne daf lay sonal wala muy ngay tëdd di gént loo xam ne ni baaxul wala kiiwul incha allah rabbi boo jokkoo ak ñun incha allahu taala yooyu yëpp dana dañ yii nag ngay gis bii nii ku nekk xam na ko bii moom siiw na fi mu ne nii bii ci wàllu kàttan lay dox waaw wàllu kàttan noo ko waxee ci tubaab noonu impuissance sexuelle waaw ñun xam nga daanaka ara kii bee ñu xaw yàq euh, wàllu kàttan lay dox kii ku néew kàttan moo ko tax du jug li may ñaan xale yi nag mooy maanaam tey jii nii xale nga yow ndaw nga am na yoo xam ne waroo koo laalagum parce que sa doole jugewul ci yow ki nga xamante ni dem na ba nga xam ne mu ngi waaj a âgé wala yooyu noonu daanaka yii ñoom lay gën a arrangé parce que daanaka boo demee ba mënatoo def sa sa jabar yu mel nangam ay minute kii yooyu day xaw a doy waar moo tax yii bii boo ko amee fexe ñu wax la nii nga xamante ni moom lañ koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko bu soobee yàlla di nga gis résultat ndax ñun ñaareel lu ñu ko yomb di publicité ndax clients yi ñoo ñuy booleeg ñeneen ñi ku ko jël mu baax dangay jox numéro keneen ku ko soxla mu kii ko kon loolu bii mooy wàllu kàttan gi amu ci moroom kii mooy wàllu kàttan nii nga gis moom mooy ndoxu siti bi hmm. kii ndoxu siti la hmm. waaw mooy euh, euh, ndoxu siti moom mooy euh, kuli hmm. kii mën na tax sax nit ñàkk nekk góor ah, waaw kuli baaxul ñu bëri ñu ngi nekk ñàkk a nekk góor néew kàttan fekk siti rek moo ko waral. Mhm. parce que dafay dugg sa biir jëmm yàq sa organes yi nga xam ne moo war a moo moo moo war a sëy ci yow yàq ko bu ko defee sa sa sa sa sa kàttan dafay néew. Mhm. bëri na ñuy ñuy jàmbat néew kàttan lii la mais siti bu jugee ci yow daanaka yu bëri dootoo ko soxlaati. kii mooy siti képp koo xam ne am ndoxu siti jaaxal na la ñëwal fii nii incha allahu taala ñu jëflanteeg yow incha allah di nga kontaan. Mhm. kii ci wàllu hémorroïde lay dox. hémorroïde bi nekk si suuf xam nga hémorroïde ñaari façon dafa am mu nekk ci biir yaram am boo xam ne si suuf la nekk. Mhm. picc la dafay génn kii tey jii nii bu la boobu sonalee da koy jël nga daal di koy diw si picc bi incha allahu rabbi semaine laa la may si kàttanu yàlla incha allahu taala lii luñ xam la. Mhm. ba pare moo tax ñu ñu di ko ñu di ko wax nii semaine laa la wax di nga gis ne picc boobu dana deñ incha allah rabbi ba nga xam ne sooy demati euh, gaanuwaay yooyu du la sonal. ndax hémorroïde dafa doy waar hémorroïde lu lu lu lu yéemee yéeme la ndax dafa metti trop trop trop ñu bëri dañ ma siy jàmbatal hémorroïde bi nii hémorroïde ma ne leen xamuma xamuma ne hémorroïde nii la mel mm-hmm. bii tamit ba léegi dafay dox ci hémorroïde mm-hmm. hémorroïde bi nga xam ne ci biir la ne mm-hmm. kii sunguf la boo xam ne da ngay tàngal ndox segg ko ba mu segg nga segg ko ba mu teey nga naan ko bu ko defee hémorroïde bi nga xam ne moo nekk sa biir jëmm dana wàcc lenn li da ko tuur ndox lenn li nga dem ko euh, joor ba nga xamante ni yëpp dina jeex incha allah rabbi kook ci hémorroïde lay dox. kii nag boo ko gisee estomac la. kii mooy estomac. kii boo buñ la boo boo si jotee incha allah lu la neex lekkal. lu la neex lekkal estomac dalay tere lekk wala muy diisal sa gannaaw gi sa yaram beeg yu mel noonu. waaye kii tey jii nii boo ko amee. boo lekkee ba pare jëlal kuddu. nga nga nga tàngal ndox def ci boo paree nga jël meew def ci naan saye jeex na boo bu yàggee sax balaa pot bee jeex da nga gis na si estomac bi moom dootoo soxlati garab bi estomac mhm. lu doy waar la ci estomac ni ñaa ngi koy jël si fu ne ba bitim réew fu ne dañ ko da da da dañuy téléphoné ñu ñu di leen ko jox macha allah kon alhamdulilah rabbil alamin mhm. bii ngay gis maanaam dafay faj bépp feebar bu nekk si jàngoro bu nekk si yaram bépp jàngoro boo xam ne mu ngi si yaram rek da koy faj biir buy metti ballonnement lépp lu nga xamante ni euh, lu loo xam ne daal lu la sonal la sa biir yaram nga di ko jàmbat fexeel am kii nii incha allah muy bopp buy metteeg lu ne daf koy faj incha allah taala si kàttanu yàlla kon bii tamit ba léegi moom tamit ci hémorroïde lay dox bii tamit bu la neexee boo bëggul yële da ngay jël bii xooj ko sa biteel rek daal di koy euh, naan incha allah am na ñoo xam ne sunguf bi daanaka mooy loolu kon mu ngi noonu affaire yaa ngi noonu léegi lu ñu jàll ci wàllu noob yooyu si lañ bëgg a waxtaan. xam foofu laay jeexalee sax. parce que ñu ngi may signaler li ñu ma mayoon ci waxtu mhm. waaw mhm. waaw. kon wàllu nopp. wàllu nopp dafa am solo. Mhm. ak jubale li nga xamante ni mooy nit koo xamante ni sa kër. dafa nekk loo xamante ni dangay yomb di dégg ay coow. fii tey coow fii fii ëllëg fee coow. loolu baaxul ci kër. tey jii nii sëy lu koy téye du caaxaan jigéen nekkul ne da ngay takk rek ñëw boo gisee sëy yu bari gaaw a tas ñàkk jug si soxna dañ siy jug. Mhm. soxna dañ siy jug parce que ki nga xamante ni bàyyi na kër baayam ñëw sa kër. pour toog foofu noonu am na loo xamante ni da ko si wàllu yërmande gannaaw yërmande bu jàllee am na loo xam ne moo koy dëj foofu. Mhm. nekku ne danga koy takk rek bàyyi ko nii non non non que ni nga ko bëggee la am ñeneen ñu ñoo xamante ni bëggee nañ ko noonu. Mhm. kon bu ko defee lii nii ci wàllu noob lay euh, dox. koo xam ne bëgg nga jabar. wala koo xam ne bëgg nga jëkkër. wala koo xam ne am nga jabar. wala koo xam ne am nga jëkkër te bëgg seen diggante neex. Mhm. ba nga xamante ni yenn coow yi mënul ñàkk ci sëy sax. Mhm. waaye daanaka dootul bëri noonu. kon bu ko defee kii si la ñuy liggéey nopp. kii tey jii nii luñ takk la gis nga ko. Mhm. buñ la ci liggéey la nopp ba nga jëfandikoo ko ni nga ko war a jëfandikoo. bu dee da nga bëgg soxna. wala nga bëgg euh, li nga xamante ni mooy jabar. incha allahu rabbi wala nga bëgg jëkkër. bu ñu la ko joxee incha allahu taala ki nga bëggantee dina la bëgg ba ba mu jéggi dayo incha allahu taala no pire moo nekk nii waaw ndax euh, garab goo xam ne garab gu doy waala daanaka duma koy defal ñu bëri sax bu da nga bëgg soxna wala bëgg kii moo tax ma la koy defal ndaxte jamono ji léegi dafa yàqu am na ñu bëri da nga koy defal ñu dem ba tée ndaw si di ko caaxaane ba leneen fekk la ci te boobaa bàkkaar bi ñun dañ ciy am kon bu ko defee ku ñuy waxtaana dinañ xam ndax si jabar nga nga nga bëgg wala lan nga bëgg kon mu ngi noonu Euh, li nga xamante ni tamit mooy wàllu wi nga xamante ni képp koo xam ne télé naa am doom incha allahu taala boo ñëwee si ñun incha allahu taala comme ni ñu ko mag ñi bàyyee rek yàgg nañ see defal ay nit maanaam du ay nit kese waaye yàgg nañu fekk jur goo xamante ni dafa télé am doom ñu defal ko ko yàlla def incha allahu taala mu am doom kon képp koo xam ne da ngaa am doom soo ñëwee si ñun bu déwénee bu neexee yàlla si kàttanu yàlla li yàlla maye bu nem nangu ko nem jeexul incha allah rabbi di nga ñëw fi indi sa doom ma am naa ci ay turandoo yu dul jeex loolu sant yàlla alhamdulilahi rabil alamina kon mu ngi noonu affaire yaa ngi noonu mhm. alhamdulilah képp ku ñu soxla daal wooñu mhm.